waaye jël nañu motuwaay yëpp pour que d'abord ñi nga xam ne parce que xam ngeen ne feebar bi Chine la nekk mais ñi nga xam ne dañoo jóge Chine di ñëw bu ñu yegsee fii Sénégal parce que dañ nekk ci foo xam ne ñiy dem fii Chine bari nañu parce que xam nga Chine ñu bari marchandise yu ba fa la ñuy jóge donc képp koo xam ne jóge nga Chine ñëw fii Sénégal nañ la cartographie seet fa nga dëkk am nañ ñetti cas voyageurs yoo xam ne dañ seen yi commerçant yi nga xam dañuy jóge Chine di def seen commerce bi février bi amé amna ñu bi février bi biñ ko déclarer am na ñoo xam ñu ngi Chine mhm. donc ci foofu lañ commencé nak ñi nga xamné dañuy joggé Chine normalement di voyager ñu commencé di leen euh, recenser donc à chaque fois district am ñu am cas boo xam ne mu ngi sa région médicale wala sa district ñu yëgal la ko yow yaay dem ci malade boobu fi mu dëkk ñu jox la numéro téléphone ak adresse am ngay dem ko surveiller bu 14 jours yi 14 bu toggee 14 jours amul dara nga bàyyi surveillance boobu mais kenn isolé wu leen isolement